المحتسبين المحسنين المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الجنة وخلقها الله تعالى للمؤمنين قبل أن يجدهم وأسكنهم إياها قبل أن يخلقهم وقسم الأرزاق قبل أن خلق الأخلاق ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قبل عمل وأن يباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قبل عمل وبعد أحييكم بتحية الإسلام تحية جميلة جمع أرواحكم حارة حرارة شوقي wa aqulu lakum ayuha almushahiduna alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki téléspectateur u LCS muy la chaîne sénégalaise ginnaaw bi ñu sante yàlla buur bi azza jalla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na ngi fas yéene dellu àndandoo ak yéen ci seen émission bi tabaarakallahu ngeen koy am ajjuma bu jot diggante 22 heures ba 23 heures mu di hudan di njub ngeen ci ànd ak seen mbokk El Cheikh Lamine sen ni leen ko waxee tabaarakallaahu ñoo ngi ñaanal mbokk yi tawat yàlla defal leen shifaa'u way dawlu yàlla yërëm leen ñun ñi fi desandi yàlla na yàlla yàggal seeni ñaan ak seeni sarax ci suñuy loxo mbokk yi caabi fete ginnaaw bokk na ci li leen di wéttali muy ay jataay yu ni mel kon noo ngi leen di bàyyi xel di ñaan buur bi azza wa jalla wéttali leen xettali leen ca barab yooyu di ay prison ndax liberté moom macha allah ku ko ñàkk ñàkk nga lu foor ñàkk nga lu am solo kon yal na yàlla xettali leen foofee waaye ñoomit yàlla na nu dimmandikoo muñ noo ngi leen di bàyyi xel tabaarakallahu di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ak kilifa yi yàlla teg réew mi ci seen loxo di ñaan yàlla ak juboo ak déggoo di ñaan yàlla dal di ñaan yàlla dolli ñu jàmm nuy bàyyi xel boroom xam-xam yi. borom xam-xam yi nga xamanteni setan ñoo ak borom xel yi rafet yi mu melni ni euh, jamono ju ne bala no tambali waxtan bayi len xel ñom borom xam-xam yi ak xel yu rafet yi tabarakallah jéggalu le nit dafa fekk ni doom aadama moy wax di lu jappandi ci kaddom njumte man ca am ndem doom aadama rek la lolou rek mom motax waaye boo ko seetee sax ni nu ko baaxoo di waxee jotaayu waxtaan yi yépp rawatina yu jëm ci wàllu diine boo cay waxtaan war nga caa indi tuuti màndute mu mel ni fàttalente moo fi nekk ñu def ko nafar rek macha allahu waaye yàlla baaxenu bi xurmati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba foo nu fekk rek ciw yoon boo nu dabee bu yóbboo neel ñoo nga ca sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ni moom mooy njub ci boppam moom mi nga xamante ni mooy tax nit ñi baax yàlla wax nu ci alquran ni bu ngeen ko toppee jub bu ngeen ko soppee baax na lool waaye njub mooy mi ngi nekk ci nga topp ko moom bàyyi Faatumatu bintu rasulillahi loolu la ñu yàlla wax bu ngeen ko toppee rek jub kon nan ko topp ca digle ya ak ca tere ya macha allahu di bëggee nag képp koo xamante ni kii LCS yaa ngi koy seetaan rawatina nag waa sopp nabi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu moom ñooy jiitu ci nuyoo yi fa tabaarakallah sama xaaliqin euh, di leen sargal di leen tatagal di leen darajaal waaye di leen ñaanal yàlla jàmm mu mel ni boo ko seetee euh, jamono yii ñu nekk nii daanaka li ëpp ci doom aadama yi naam ñi yittewoo jaamu yàlla ñoo nga ca ñi yittewoo diine ñoo nga ca ñi yittewoo roy seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo nga ca ak foo mën a doon taalibe tey jii bokk na ci sa yëngook sa dal mooy nga fexe ba roy ka nga xamante ni kii moom nga yaakaar ndax moom rasulillahi la roy muy lu am solo waaye euh, jamono ji nekk ak la cee war a xew Euh, tey jii léeg-léeg nga xool ci lu mel ni télévision <coughs> wala nga déglu ni lu mel ni rajo li ëpp ci li ëpp ci euh, waxtaan wala message buy jàll boo ko seetee jamono yi maanaam mi ngi jëm rek ci nañ ko tuddee turam mooy politique muy siyaasi <coughs> tabaarakallaahu muy lu am solo nag ndax mooy tax am réew dox waaye ginnaaw hudan la ñu wax hudan mooy njub noo ngi ñaan rek bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jafe na waaye bu ñëpp jubalee jàmm rek am bu ñëpp jubalee jàmm rek am ku ne yaakaar ni mbir mi sa mbiru bopp la mooy bëgg defar laltaayu ko jàmm bu ko defee yàlla dimbali nu dolli ñu jàmm bi xurmati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo tax damay fàttali rek ram politique ci bopam euh adina bi politique la bokoy koy nak bu islam haqqan yenenti bi jitu na ca bu islam haqqan mustafa jitu na ca ba mom la sampe dinel islam mu melni mu rafetal ko lolit parce que liguey ba mo demé nonou gor yàlla yi fi jaarit nonou rek lañu def motax da bay fatali ni amna sëtam bo xamni bind na ci lu demé nonou wax ni moom de bu ko nit ñiy laaj en tant que góor yàlla lu jëm ci wàllu politique nee na doon na mbir moo xamante ni bii daf koy laltaaye yàlla ak kii imaamu ahlil janna muy seyduna muhammad bëggit képp kuy mbokkam nga xam ni bii politique ci la yiw di am ak yërmande parce que yàlla lañ ko laltaaye dafa ni annaasu yasaluuna an hawiyati لمن تكن أين تكن سياستي سياستي لله رب العزة ولرسول إمام أهل الجنة فهذه السياسة يا إخواني تجر للخير وللغفران دونك لولو لي أه، بو أمي بيتي فتبارك الله سلو خالقين دغاي جيما غور غور لوبا بيتي بو فكنتني موتاخ nga دي دال غني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم nga jàpp ko foofu annaasu yasaluna an hawiyati waaw nit ñi ñoo ngi laaj exemple Cheikh Lamine Sène lan mooy mbégteem wala ci lan lay yëngu rawatina buñ koy tuddee politique an hawiyati li man takkun ayna takkun siyaasati ana lan moo ñeel ana lan moo ñeel sama politique ana fan la sama politique jëm am ak lu tax may politique misaal ci man siyaasat sama politique lillaahi dafay ñeel yàlla xaqat mooy lépp lu yàlla bëgg ñu parce que looy def lu mu mën a doon lu ne lu la àddina dab dab dab lu la àddina dab dab dab looy def lu ne nga sóoraale ci buur bi subhanahu wa taala moo tax mu ne siyaasati lillaahi politique ba def cee jiital yàlla waye miñ koy jaarale ci ki nga xamanteni ki kii nu jàngal lépp muy kat muy sayyiduna muhammad wali rasul imaami ahli janna ki nga xamanteni ni ëllëg yawmal qiyaam mooy jóg dóor paa moom bàyyi fatimatu bintu rasulay ñëpp topp ci ginnaawam parce que moom la suuf di jëkk gëq mu génn moom rasulillahi salaa sallam moo tax mu ni ana qaidul xurril muhajjalin ndeysaan ñun ñi jaamu yàlla julit yi la bëgg a wax daan faratal njàpp njàpp loolee téye seen cër yooyee ñu daan tooyal ñu weex tal tax na moom dana ko bëggee bàyyi Faatumata bintu Rasulillahi fekk dañoo boole woon yàlla ak moom jëmmam ja ci sunu yëngu-yëngu fii ci daar duniya bu ko defee bu jógee dóor paa yomal qiyam ñu mën a topp ci ginnaawam kon siyaasati lillahi rabbil izzati wa li rasuli imaami ahli jannati kon politique bi dafay ñeel yàlla nga ko yàlla looy def nga di ko ca sóoraale looy wax nga di ko ca sóoraale loo narul bu ko diggee tabaarakallaahu tabaarakallaahu mu mel ni jéem a góorgóorlu ba ay ndax jeex wuruj jeex wax lu dul dëgg jeex tabarkalla lekk ci kaw doomu aadama jeex te teg lépp ci dëgg lu jafe la nag parce que maanaam bëgg yàlla bëgg yonent bi ak jihaat ci yoonu yàlla su fekkente ni bii da ko bëgg teg ci yoon faw day am nooy mel dafa jafe nag bu fekkente ni bii tey jii dangay xool sa intérêt bopp wala foo xamante ni fii danga nga fay amee ndimbal am fa soutien am fa appui am fa assistance te yii yépp mu wóor la di soo nekkalee yàlla di nga ko ñàkk nekkal yàlla tax nga nga nga nga ñàkk loolee bu fekkente ni nekkal yàlla jaralu la ko dangay jël loolee teg ko fi sa kanam daal di ñàkk yàlla te nit nag lu muy am na am yàlla lu muy ñàkkit na am yàlla moo tax indi nañu fi benn aaya doon ko waxtaane keroog ma wax ni dañ koo taxañ rek ndax booba téléphone yi ñoo commencé ca ba ñu ñëwee ba ci ashira wa ashiratukum joojee yàlla wax ca tàmbali aaya ba qul in kaana abaaukum ba ci ashira boobu ashira muy mbooloo moo xamante ni bi la ko leeral ci alxuraan mooy ay jamaatukum allati tastansiruna bihim muy mbooloo yoo xamante ni kuréel yoo xamante ni moo xam parti la wala daayira la wala fu ñuy dajee di waxtaan wala fu ñuy daje di sikkar wala loo xamante ni lii yow sak njariñ daf cee jógee su fekkente ni gënal na la yàlla gënal la rasulilaay gënal la jiyaat ci yoonu yàlla booba génn nga sax ci diine te ko yàlla daf la war a gënal lépp yenent bi gënal la ñépp jihaat ci yoonu yàlla maanaam muy liggéey boo xamante ni bii saa boo gisee naka sudul noonu ci diine mu jaral la ko démb dañu daan dóor jaasi waaye tey jii moom bu jaasi amul it kàddoo ngi fi am katan pour tay ji ko xamanteni ki mi ngi déraper mi indi ko tek ko wax ak mom parce que nak diine diine dafa am nu mu gisee leneen gisee neneen waaye diine dafa am nu mu gisee te nak bur bi azza wa jalla limu wax dafa leer de wa in tubdu ma fi anfusikum yeneent bi moñu jotali aw tuxfuuhu yuhasibkum bihi allah fa yaxfiru liman yashaau ويعذب من يشاء yasha على كل شيء قدير يلا نينا القران لا جخ سيدنا محمد بو دوجي boo بير نيك بي ولا bi بير ci للو ديف لا lëlu ديف ولا nga génn ci mbedd mi feñal sa jëf lu mu ci mëna doon lu nekk yàlla ngi ni ci jàkk te ca loolee lay taxaw atte la ci loola waaye nag ci biir loolu tam màndute mi ngi baax ci nga gis jëfi doom aadama mandu ca dégg doom aadama wax nga mandu ca bañ koo atte te yàlla atteegul parce que boo bëggee dégg dëgg mooy yàlla dafa wax ni yuxaasibkum bihi llaahu ca yàlla yàlla nee na ci yi ngay yëngoog di boo ko def loo mën a def lu nekk ci laa lay attee waaye nag daf ca teg nag fa yaxfiru liman yashaau wa yuazibu man yashaa donc léegi mandu te day daal di taxaw ci boo gisee nit ci melokaan woo xamante ne yaakaar nga ni melokaanu ku jëm safara la nga ñaanal ko mu dem àjjana boo gisee nit koo xamante ne kii melokaaram melokaanu ku jëm àjjana la nga ñaan yaakaar bañ a tas bu dem àjjana parce que yàlla nag te nag am njuuy la moom buur bi azza wa jalla demagul nag ba dellu waaye euh, nit ki tey li ñu bëgg jàngale xàqan mooy loolu dañ ko doon ubbee euh, maa ngi wax sànq rek ci jumaa ji maa ngi leen di nuyu tabaarakallaa du nuyu imam Omar Diallo bu dee ci jimaa ji fii ci Liberté 4 ak ña fa nekk ñépp bu dee ca Sicap Liberté 3 mooy nuyu imam Hadj Mouhamed Lamine Sané ndax foofu la ñuy alterner macha allahu waaye tey rek li ñu indi mooy nit ku nekk foo tollu yaa ngi naan man yàlla nan la ma téye yàlla lu muy jëflante ak man li may wax nii nag ku koy seetaan di ko dégg xam nga ni da nga ni Cheikh seen mii li mu wax day ñàkkul mës na maa dal ana loolu mooy lan mooy wéet ba mu yàgg nga ni ah waa man fan laa jëm ak sama borom wala nga bëgg xam yàlla nu mu la téye wala yàlla lu mu nar ci yow kooku nit ku nekk dina xalaat lan la yàlla nar ci moom te sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na boo bëggee xam ni la yàlla téye yow xoolal li la yàlla jaral lu ma ta bàyyi xel la gaa ñi nañu xam ne yàllaa yor lépp يلا مو بند موي وسغل يلا موي راي موي ديكال يلا يور ليب موي فعل لما يريد لوكو صوب مو ام لوكو صوب لو والله والقران دا فا ملني دا فا ام مبوم مو مرك موم ريك موكو مانا سول موي فعل لما يريد لما تباي خيل لولو دم نبي تي سيدنا محمد مي ني صوب ديكو وقتاني يالا جاجي نكو تي فعل لما يريد من ماكو من ماكو ام ماكو دخل ماكو ابليكي كلام ولا تقل لنا لشيء اني فاعل ذلك غدا الى ان يشاء الله لا شك فيه يلا ججن سيدنا محمد تي لو مصطفى وخون فاسكو يين النار ديغنتي ماك صابي بغ كو جوخي تا با وقتو جوتي يلا غانتال لولو مو ملني يونتي بي لم بوغون واخ سا خاماتوكو يلا واتي اي القران فك باكو يونتي بي واخ ديكو نيسل واخول وون ان شاء الله كون لو سوب يلا مو ني لوكو سوبو دو نيك يالله واخنا تي القران وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم لا شك فيه صدق الله العظيم يالله يري لو دوغ موما لو ام موما لو نياكيت موما لولو دنجكاي ديمي ديفكو فيلوزوفي تيكو با نوبي نك دي سبب لو لغي نك نيغي خولي ني ولا نيغا بغا خامي يالله فان لا تولو تي ياو يونتبي صلى الله عليه وسلم بوك دي تي مو ديغلي نينا اك نيو نكو nanu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla ci maanaam tey dama indi benn waxtaan boo xamante ni euh, xam naa am na lenn ci fayeen walla njuufeen yoo xam ni bu seen biir feesee guddi du ñu mën lii may bëgg a wax mooy teel a jóg teel a jóg dafa bokk ci critères yi nga xam ni dina dimbali jëmmi doomu aadama bi ci lu bare bare bare te nag ginnaaw dañu fees dell ak bàkkaar am na bàkkaar yoo xamante ni te bare na bare na nag ci doomu aadama fajar rek la ko yàllay baale dafa am ay ñaan yo xamanteni suba rek la ko yalla nangu yalla nangu nak waxtu ko nexe waye nak ci rawati na xaju guddi guddi boko sété pour noppalu nelaw la alquran sax wax na ci waye nak lek le dafa am lu mu lay jaral ci sa digënté guur bi azza wa jalla pour nga am gën de cause ca ya nga bëgg dafa am bis qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam li rajulin min ashabihi dafa ben benn xamanteni ci saaba yonente bi la sallallahu alayhi wasallam baatin lay demee waxool waa ji ba mu yàgg mu ne ko yaa fulaan fekk waa ji dafa mel ni man mën a nelaw lool balaa moo yeewu rek dix jot mu ne ko laa tuksiri nawma bi leyli sa nelaw yi ngay nelaw guddi bare na bul koy bareel moo tax ko ragal yàlla dëgg dëgg dëgg du nelaw ba yandoor góor yàlla yu baax yi daaw ñu àgg ci nelaw ba yandoor laa tuksiri nawma bi leyli فإن كسرة النوم بالليل يدعو صاحبه فقيرا يوم القيامة الله أكبر ينتبه خمبرينا نانا كلا أبن نلو قد جيم نلو نلو نلو بدويل سبسي نلو نلو نلو نلو بدويل ينتبه نانا يوم القيامة أنا لين فسخلا دي waye ku bëgg doon faqir yowmal qiyam rek ñëpp taxaw nga doon faqir bu yorul dara nee na saxol wala yaa xam huit heures wala neuf heures wala minuit nelaw ba yeewu ba neuf heures ngay doog a jóg yal nañ ci yàlla musal te buur bi azza wa jalla wax du ci alxuraan jaarale ko ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jottali ñu qaala taala fi muxkami tanzili wa min alleyli fa tahajjad bihi naafilatan laka asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda sadaqa al azim yàlla dafa bëgg jàmm boo xam ni boo bëggee xam maanaam nu la yàlla téye nga xaw ci am appel si bu ndaw dafa lay jaral nag nee na am nay parti ci guddi gi na la jaral nga ni bëri jóg loolu nag woote la boo xamante ni bii noppi xol moo koy dégg mu jaral la nga jóg mais Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nu jàngal te yàlla baal ko bàkkaar yu jëkk yu mujj yàlla teral ko yenent bi di àjjana juy dox yàlla ni ko inaa fataxnaa laka fatax inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا كن امول لول كدور رسول الله بكار بوجيك بوموج اوبيل اموتو بن بروبليم امو سانسين تيد سي بن مباخ مباخ ييب نك ياو واي تيرول موم رسول الله له نيل نكو قدم اي تانك ولا او تانك بو خامتيني بي نان نكو جابي إلى طاعته يسعى ويقوم به في داجي ليلي لا شك فيه دلان خار بقودي جي خار لول مجد تخو دي جامو يا الله أكبر السلام عليكم له قدم إلى طاعته يسعى به ويقوم في داجي ليلي لا شك فيه دلان يدلي بطانك يرمي بقودي با دقنجين بس سخنام سو تد سا عايشة نكو يوم sa coono bi ci naafila guddi ci naafila guddi julli gu bari lii te yow yàlla wax la li mu la wax ubbil la lu biir jégal la say bàkkaar jox la ndimbal nga am lépp lan la ko tegal ca wax ja ni ko xanaa kay ku ñu defal li nga war a sant te cant gi nag mooy lii te iamalu ala daawuda shukra cant du yem ci alhamdulilah rabbil alamin day doon jëf tabarakalla waa ndegam moom mooy def noonu xoolal dama ni lu ma laax danaa ci ràccaale sëriñ bamba mbakki xadimu rasul loolu nag engagement personnel la man Cheikh Lamine Sène dama dégg muy wax ni ci jóg guddi jóg guddi julli ci ñoo xamante ni yàlla baaxi na leen ba bokk nañu ci ñiy tàbbi àjjana ëllëg muy saaba yi daan ànd ak Seyduna Muhammad ba muy wax naan baau fudulan bi dikrillahi xaaliqihim fa nawma fi leyli baauhu bil munajat te ñoom lépp yàlla yëwanal na leen ko ba noppi gërëm leen ci alquranu karim mu ne ñoom ñoo ñee saaba yooyee daan ànd ak rasulillah te yàlla gërëm leen baa baaxu fudulan bi zikrillahi xaaliqihim ma ne lañu daan daan jaayanteeg seen borom subhanahu wa taala mooy fàttaliku ko fàttaliku ko di ko zikkër di ko tudd jël yel lenn ngëneel poñeti addina addina yi teg fële mu ne day dem ba fa naw ma fii layli manam naka nelaw ci guddii baaxuhu dañ ko jaayanteeg borom bil munajat ci di déyanteeg yàlla subhanahu wa taala non la sabay yi daan def motax tax mu ni kaanu nekkoon nañu ida leylu arxa sitra za xalakin qaamu siraan li ixyaai dujunnaati la shak fihi nena na saa bu guddi ba saat dem ba la dem lol lol lol lol lool ñoom ñemewuñu won tëdd bay xandar guddii ba suba jot ñuy soogay jóg dedet bu musan dem ba guddii ba ni tek tenebri wàcc lépp sa duguy kaanu idan leylu arxaasit raza xalakin xoolal dafa mel ni guddi dafa am sutura soo xamante ni xaaju guddi suuf sedd rek ci la koy ci la koy guddi di doxale sëriñ bàmba nee na gaañoo ñee saaba yooyee xaamu dañuy jóg ci lu gaaw siraan ngir lan li axyaa i dujunaati ñoom noonu lañ daan dundale ténèbre guddi lëndëm yooyu noonu lañ ko daan dundale fa xaysuma barazat leyla wa soda fi qiyamihim anha tawalaw ilal mawla bi taati kon ñoom est ñoom xaqan góor ak jigéen mu lew la ku góor ki ji ku jigéen ki mu lew la waaye am benn moment benn moment ci guddi gi nga jël yàlla ni ko lii man maa la ko njukkale bien que lii lew na ma daggat na ma moo tax fa xaysuma barazat layla soo soda fi qiyaamihim soxna yooyee daan lay laaj sooda ak mariama soxna saaba ya saa bu ñu mësaan ni tëll ak seen splendeur song seeni borom kër wala ñu soxla leen ah kay jaamu yàlla waaye léeg-léeg dañuy jël la ëpp ca guddi ga jox ko buur bi azza wa jalla anaha tawalaw an mi ngi noonu ci loxatul arabiya ak garaw an jëm fan an ha tawalaw wan gannaaw soxla yi soxna yi jëm fan ilal mawla ci buur bi azza wa jalla bi taaati ci di ko jaamu waaw léegi nag ñun ñii ku ci mel ni Cheikh Lamine Sène nga dégg loolu fa tabaarakallah sunu xaaliqin ba noppi yeneen bi am ku mu wax loolu ni ko nelaw yu bare guddi day tax yowmal qiyaam nga doon faqiir kon nag nañ waxtaan ci nelaw tuuti ci guddi gi parce que dafa am solo euh, yàlla nee na jógal ci guddi gi lekk-lee nga dóor ay rakaa ñaan ci yàlla yàlla nangul la yonent bi nee na am na benn waxtu ci guddi amul genn góor yàlla gu ci jóg ñaan buur bi azza wa jalla mbir te yàlla daf la koy jox guddi beneen affaire la wa tabarakallah parce que euh, wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan laka kooku amrun la nga demaat yàlla wax bi wa bil asxaari hum yastaxfiruuna kooku chukrun la nga jëw ci wal mustaxfiruuna bil asxaari kooku zikr la waaye nag fa tabaarakallah sunu xaaliqin dañu jële ci sufyaan assawri rahmatullahi alayhi mu wax ni inna allaha taala xalaqa riixan تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار يلا نكتي يو guddi gu jot dafay créer benn ngelaw ngelaw loo xamante ni la muy demee mooy ngelaw li jaamu yàlla la li ko yàlla sant mooy yàlla def ko naan wëral seetal ma ndax am na ñoo xamante ni am na parti yu ñu jóg ci guddi gi rawatina nag bu fajar gi jege si di ca def ay askar ak di ca jégalu ngelaw loolu mooy demee loolee yóbbu ko ci buur bi azza wa jalla تنكا موخني وقال ايضا اذا كان اول ليل ينادي مناد سوني دامي ما غودي دم با نيك تي بروميير بارتي بي يالا دا يوني بن اتيف موي ايكو بو خامتيني بي من تحت العرش لي جوغي تي سوف عرش لان لاي واخ الا ليقم العابدون الا ليقم العابدون الا ليقم العابدون واخ لا جو خامتيني فك نيك تي بير نلاوي لولو دو نوب bii moo koy déglu waaye nopp xol moo koy dégg loolu mooy da nga yëg ni war ngaa jóg julli nga ni bërit jóg fa yaqumuuna al aabidun wa yusalluuna macha allahu bu ko defee am na ñoo xamante ni am na waxtu yoo xamante ni ci guddi bu jotee rek tabarka la tabarkalla la la leen di yee day fekk mu nekk ci ñoom dañu naan bërit maanaam jàpp du guddi gi yëpp waaye xëy na trois heures et demie du matin jàpp quatre heures wala quatre heures du matin tabarkalla muy muy dem loolu dafa am yu ci am dafa am bagage yu bëri yu ci am fa tabarkalla moom la ñu bëgg leeral parce que sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dama ni boo ko soppee bëgg ko topp da nga koy topp da nga koy jéem a roy yàlla daf nu ko royloo wa laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana pour ñan li man kaana yarju llaha wal yawm al axir yàlla nee na royuwaay bii di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lan la ci yéen ngeen di ko rey ñi yaakaar ëllëg dajeek man ma gërëm leen fa tabarakallahu te bis ba nga xamante ni bii bisu pay la roy ko bu ëllëgee ma fay la nga am sama ngërëm ndeysaan kon première partie guddi gaa ngi noonu al abidun ñi jël seen bopp jox yàlla doon ay jaam nangu doon jaamu yàlla waxuma la jaamu keneen de nangu doon jaamu yàlla gis nga baatu abd dafa am اي بلوريال اي جمع يدعي وار يخمتني ان شاء الله تعالى دينا تي ديك مو لير جام تي يالا موي جام عبد امنا جمع بني وح عباد امنا جمع بني وح عبيد امنا جمع بني وح عبدان بن بوتي نيك نك امنا لوكو تخا جوك وايي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهل قالوا سلاما بابو نك محقا موي بباخ بي دك دك دك دا خامني يو سك نيام دك دك دك دنجو جيل ماتيرياليزي كو تي جام بوت بي سبحانه وتعالى لول لا نيو ينتي بي جانغال بو ني ديمي نك با تي غودي غي ديم باي بغي جيغي فجار غي بام كاي بغي جيغي واتامني سو فكنتني جوك نيو با جولي سوما ينادي منادين في شطن الليل ألا ليقم القانتون ألا ليقم القانتون ألا ليقم القانتون فيقومون ويصلون لا شك فيه لأن أن بن إنستان نيجي جوجيت مام دوزيام بارتي أتيف با وخات دالدني واو نيجا خامنتري دانو جيل دانو جيبل سين بوب يالا بولي كوك هيميليتي مانام بولي كوك تواضع بولي كوك بيدل سين بوب تي كانو يالا بولي كوك خامني يالا موي سين بروم nit dana nanguni yalla ay boromam yaa deg waye du am tawadu ñëpp gëm nañu yàlla waye dafa am bo xamanteni bi dafa ca neex moy doon jaamu yàlla gëm ya gëm ni yàlla moy sa borom mom la waye nga boole ak tawadu moy humilité fa tabarakallah sunu xaaliqin kon ñi jël seen bop def soumission totale ci bur bi azza wa jalla wacc seen bop ñoñu la atif bay woni ndax diñu jóg ñu dégg ko nopi xol daal di jóg tabarakallah daal di tàllal yàlla loxo julli ñaan tabarkalla tabarkalla bu ñu demee nag ba parce que ñooñu fa yaqumuuna wa yusalluuna ila saxar dañuy julli ba fajar gi waaj a xar muy deuxième partie bi waaye nag wa ida kaana saxaaru bu ñu demee nag ba waxtu fajar jot maanaam comme li ñuy dégmal weeru koor waxtu bi ngay jógee pour xëdd war nga ko jiitu ca gannaaw tuuti waaye bii may wax ni troisième parti bi bu ñu tollo ca waxtu ba nga daan jog di profito di naan ay fayeen yek yooñu di wut lu ñu wote woote ba daal di wat bu ko fo fe nak lan lay wax dafa naan ala li yaqumil mustaghfiruna foofu la affaire ba nek dama wax ni sama classe gi am bakkar yo xamanteni yi yalla dafa am waxtu wu mu ci gaaw pour faral ko jambi moy fajar gi fajar gi waxuma la nag fajar bu ñu naan salaatu xayru mina nawmi déedéet fajar gi nga toog jóg dawal si ñaar rakk toog pour jéggalu sa borom alaa li yaqumil mustaghfiruun bu saxaar dikkee ca lay baat bay wax ni waaw ñi bëgg yàlla jéggal leen xanaa du ñu jóg yàllaay wax ana kuy jóg jéggal lu ma ma jéggal ko ana kuy jóg ñaan ma ma may ko yonent bi nee na inna fii leeli la saatan laa yuwaafiquha rajulu muslim yasal allahu xayran illa taiya la shakk fii sayduna muhammad nee am na waxtu woowee ci guddi gi góor yàlla du ca jóg wala góor yàlla jigéen de ne ci biir nag du ca jóg mu laaj yàlla yàlla di bañ déedéet parce que da nga teg moom am lu bare loo bàyyi te buur bi ku màndu la tabaaraka ahsanu xaaliqin waaye boo jógee jéggalu buur bi azza wa jalla yàlla jéggal la mel ni fa yaqumuuna wa yastaxfiruuna ñu jóg jéggalu yàlla jéggaleen مدس نك فإذا ترى الفجر صدام نك بفجر جدوك نك بنبي بنبي خم غلان لا أتف بي واخ دفنا ألا لي يقوم الغافلون واي أنا ني ساقن باي بو بريمير بارتي دوزيام بارتي با تروازيام بارتي برسك دي واجي جيخ ني دوغ بغ جوك أنا ني ساقن واي ألا لي يقوم الغافلون أنا ني ساقن بخار وقت ويدوغ جوك بكا دفع تغي جكنتي daw jël sa talaga fekk ñu naan asalaatu xayru mina nawmi ay 2 minutes dess nga dafa ni ya ca ne dedet ba yaqumuna min furushihim kal mawta nushiru min quburihim la shakka fi nga melni rek ñu ñu ni pek pek yelen ci babel ñu jëk fasiyene fëx wuy ji bi azza wa jalla bobu c'est trop tard xaar ba ñu ni asalaatu xayru mina nawmi ngay profito di xëc sa tala di gaawantu di daw yow do fu mëna am temps wu tok te ye jóg ci guddigi temps wu tok ñaan def say mbir jéggalu bur bi azza wa jalla te waxtu wo boo miné miinee xassé ba min ba nopi benen affaire la tabarkalla ñu ko min xam nañ ko waxuma sama classe gi nak mu melni nak ruya fi wasaya luqman alxakim li ibnihi gis nga luqman ci ndenkane yi mu dénk domam ja tabarkalla dinañ ci ñëw ndax alquran wax na ci ki ya bunayya bari na lu ko wax waye ci bi انه قال لقمان دفني دومجا يا بني لا تكنن أديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم بملا دلمك نانا كو داغا فخي با سيق غنارو سيق بوملا غنا موس بملا غنا يو بملا غنا بغ دارا غنار لاكو واخ ندخ فجار غو دانا جوت كوكوريكو فك يوم يو غاي نلاو بوكو waa léegi doom aadama bu demee ba ganaar parce que dafa am baat yoo xamante ni dafa gënal yàlla ci suba teel baatu seq ci la baatu ku yow di jàng alquran ci la baatu ku jóg fajar di ko jéggalu ñetti baat yi lu yàlla bëgg la ci jaamu yàlla moo tax luqman alxakim ni doom ji yaa bunayya laa a addiiku te noonu ni moom gi tawkiid la de laa ak addiiku akyasa minka bu mu la gën a yeew mukk bu mu la gën a bëgg lu baax mukk moom seq ndax moom yunaadi bil saa bu fajar jotee mu ni kokoriko wala lu jitu fajar sax ndax amna heure yo xamanteni moko joggé ci guddigi xéna légui sax ndakaaru ak fi way ci dëkk yi di nga dégg xaju guddi 2h du matin 3h du matin ganar ga jóg daldi daldi daldi daldi daldi daldi daldi daldi daldi sax daal di daal di sunu xaaliqin mu melni motax moo euh bind kat ba tabaarakallahu wax ci lu am solo muni laqat hatafat fi junxi leyli حمامة على فنن وهنا وإني لنائم من كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم أكن يا أخوة منك وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي فلا تبكي أي فلا أبكي وتبكي البهائم way way arab mo neex way neena pour yow mi déglu mune laqad hatafat fi judh leyli neena na xaaju guddi day amna ñu yàlla bind ñoo xamni duñu doomu adama waye amna waxtu wo xamanteni ni ñemewuñu ko nelaw te duñu ay mbindeefu doomu adama waye leneen lañuy doon fi nak mu indi lu melni pitax mu ne sab na fii leyli ci xaaju guddi xamaamatun mooy pitax bi te ni muy jógee bay sab avec beaucoup de difficulté la ndax dafa wax ni ala fananin mi ngi jóg taxaw naaw dal ci genn car waaye mitit la ndax wax nan la daf ca ànd ak coono parce que waroon naa noppalu waroon naa nelaw li muy doon doon doon doon petax laajoon na repos waaye ñimewu ko mu ne nag wa inni la naaimun man ma tëdd man di nelaw waa ji neex wax mu ne nag kadabtu man li may woote est ce que dëgg la ci man man defe naa ne waxuma dëgg de lu tax mu ni wa baytillahi maa ngi waat ci kaabatallahi mu ni law kuntu aashiqan su fekkonte ne xaqan sama bëggeel gi ma bëgg yàlla sama sopp gi ma sopp yàlla dëgg la mu ne la maa sabaqat nii bil bukaai lxamaimu allahu akbar kon kii di petax du ma jëkk jóg mukk di sab di sab di jooy man may tëdd di nelaw allahu akbar te sab ba nag sabal la sab ba sabbal la day sabbal buur bi azza wa jalla yaa ko xamul waaye alquran wax na ko lu yëngu lu nekk ci lu dul doomu aadama nga dégg mu yëngu ma ngay sabal buur bi azza wa jalla yàlla wax na ko nee na même kër yi ngay gis nii kër moo xam këru garab la moo xam këru étage la moo xam ba ci këru oto bu gaare ker saa bu jógee de gauche jëm vers la droite yàlla nee na ma nga ca liggéeyal ma di ma su jootal القران لا كو نيوم داجي سجدا لله هم داخلنا لا شك فيه اسكنا نك نيوم خم نانيو يالا بو باخ ادم مو خم يالا واي نانغو جير ريسبونسابيلتي كوك نك رير مانا توغ لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله واي نكو تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون باي جيخ واي نك beneen ba yàllay waxee ni kat doomu aadama dëgër na bopp tabarakallah tabarakallahu nee na inna aradna al amaanata ala samawati wal ardi wal jibaal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insaan te kat moom doomu aadama innahu kaana zaluman jahula sama ndénkaane moo ni indil doomu aadama dëgër fit ni yàlla indil yàlla jox ko waaye yàlla nee na li muy nangu yëpp ak fitu mu dëgër tooñ képp ak réer la fi nekkee te ku nekk nag fi mu nekk nii defe nga ni yaa dàq yaa ëpp xam-xam ñëpp te yàlla nee na wa ma utitum min al ilmi illa qalila fa tabaarakallahu nee na nag su fekk man jàpp naa ni sama cofeel gii ci sama borom damaa war a jooy jooy laa war a def waaye nag am na keneen koo xamante ni kii moom a dàq jooy muy picc moomee kon mbokk yi 88 628 17 27 ñu àndandoo fa tabaarakalla sunu xaaliqin seen émission hudan ñu ngi ànd seen mbokk El Hadj la Lamine seen ñuy sant di gërëm macha allah sunu jigéen euh, di Binta Mbaw tabaarakalla sunu xaaliqin di sant euh, Adja Roqee Kulbali di leen bàyyi xel waa sopp nabi Adja Jatu Njaay macha allah Adja Ayda Fall Yaare Adja Ngiraan Adja Mari Siñaate Adja Ndeye Mbaye sama yaay Adja Gën Siri am fa tabarakallah Adja Fat Fall George Adja Binta Jaxate waa sopp nabi yooyu Adja Mati Ndiaye ñoom ñëpp fa tabarakallahu ñu yóbbaale ñu ci des muy nuyu xale yi ñoom Aïcha Diallo Nafisatu Diop tabarakallahu Roqee Jon xale yooyu nga xamante ni détermination lañu ñu àndal euh, di nuyu tabarakallahu sama waa kër bàyyiwuma ca kenn tabarakallahu sunu xaaliqim di wax rek ni euh, El Hadj Cheikh Mandaw Fall ñu ngi koy ziyaare di ziare secrétaire général Waly Sey di ziare tabarakallah Abdou Sall Adja Maymuna Sall Nafisatu Sall ñu ñu ngi leen di ziare fa tabarakallah sunu xaaliqin di wax rek ni eh, ku bëgg participer mën nga woote ci di 628 17 27 bu ko defee ñu ànd ci jotaayu waxtaan wi ci li ñu indi ci eh, nelaw ak wàññi gi ñu ko war a wàññi ak jóg gi nu war a jóg pour di jaamu buur bi azza wa jalla parce que loolu lu yàlla bëgg la te boo ko sax. daf ko sax imposé parce que boo jàngee wa mina leyli fa tahajjat bihi naafilatan lakka asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda nekkati dafa am ay daraja yu yeyoo tagg ay daraja yu santu ay daraja yu yàlla gërëm yoo xamante ni yaa ngi koy mën a amee ci jóg guddi julli bàyyi ay nelaw bàyyi lenn ci neexit bàyyi dallu jóg jaayante guddi subhanahu wa taala loolu nit mën na cee ñaanal boppam allo allo waaw ah, ñoo ngi jégalu 88 628 17 27 88 628 17 27 Moussa Sopp Nabi mi defe naa ne mi ngi fi tey ak sunu doom Pape Samba ci wàllu caméra bi di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax euh, te di wax rek ni ñoo ngi nuyu Adja Ndeye Bamba Gueye ak euh, fa tabarakallahu euh, Aram Gueye di nuyu Adja Mbasu Seen macha allahu di nuyu Adja Ayda Jaxate tabarakallahu Adja Cheikh Fat Fall فات جوك فاي فتبارك الله سنو خالقين نيو الشيخ فاتو فاي سنو اك ادي بلايا تبارك الله سنو خالقين واسوب نبيو يلي دي وحرك ني نيوغي عندك نيوم دي نيان يالا يالا جابن نلو نيو سنو لغي يالا تاقتل نيو بباخ باخ باخ سنو جميك سنو چري سنو خل بي مو يالا جنكو يبو مو جنة صفكي بغ سيدونا محمد صلى الله عليه وسلم مو ملني كون 88 628 17 27 88 628 17 27 ñu bëgg gaañ yi daal bu ñu mënee dimbali ci mbir mi ñi bëgg participer ñu àndandoog ñun ci mbir mi tabaarakallaa sunu xaaliqin mu mel ni kon li nga xamante ni moom la ñaan yàlla subhaanahu wa taala bokk na ci allo salaamaaleykum. allo. allo waa kooku. Daouda Ndiaye El Hadj Daouda Ndiaye. El Hadj Daouda Ndiaye. Alioune Isaaxa waaw. waaw kay. boobu daaw na waxal El Hadj <laughs> waaw. loolu du ci dara. dama bëgg dama bëgg leerlu ndax bi ndax ndax ndax bi ma xam la rek. moom la boobu la. waaw kay Ndiaye ñu ngi seer bu baax. boobu la boobu la Cheikh boobu la. Ndiaye ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax. dina ziar dina ñaanal nga gudd fan ak wër. amiin Ndiaye. ci réew bi dugale xol yi doole ñëpp ñu vraiment kontaan naa trop. dëgg la yow da baax da bëgg diine. li nga def ci man waaw noonu la. kon nag maa la gërëm la ñaan mais dama kontaan trop trop la ko. El Hadj Daouda. lii sa bëgg-bëgg la. lii sa yëngu la sa dal la mooy diine. macha allah kon loolu soo ko waxee. man xam naa yow xam nga yàlla xam na lépp lu ñu jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu njaay kontaan naa trop ci woote bi kontaan naa ci woote bi jaar sama yëpp di ñaan a sedd glace gis nga daaw de élection yi mm. Mm. jàmm ji nit ñi jàmm ji ñun ñoo ko mën a indi mm. xam nga ku bëgg jàmm rek yàlla jox la jàmm ku bëgg leneen lu dul jàmmit yàlla sëf la ko yow kenn kese waaye lekk léeg la yàllay sëf jàmm bi moom kenn kese dafay am ay tentacule ba day laal ñu bare looloo tax ah. wut jàmm dafa gën ndax boo wutul jàmm ba aw ay ñëw ku ca yoonam nekkul daf cay laal kon yàlla ñu yàlla dolli jàmm ñu bëgg ko ñu ñëpp nag te xam ni paluk àddina moom jarul tojante ay bopp ki falu dëgg te du folliku mooy azza wa ah. jalla ah. muy buur bi azza wa jalla kooku la nguuram dul jeex mukk jërëjëf jërëjëf dina yokk xel yi yu baax a baax baax a baax jërëjëf jërëjëf vraiment kontaan nañ ci trop trop maa ngi jaar ci moom ndeysaan Daouda Ndiaye mi El Hadj Daouda di nuy nag sunu mag Isaaxa Sène sunu xalifa ak Cheikh Tidiane Sène soxna am leen jaata ak Xadim Ndiaye ñoom ñu ngi leen di ziar di nuyu sama rakk Xadim Sène ak soxna Ayda tabarkàlla yaay kontaan nañu trop di nuyu suñu waa kër 88 628 17 27 bëgg participer allah di nuyu képp koo xamante ni kii rek yaa ngi ànd ak ñun allo salaamaaleykum allo allo yëkkatil baat bi tuuti. waaleykum salaam kooku. man la Ousmane Gueye nga def. Ousmane Gueye. waaw dama doon laajte encore seen ah, la. bii mooy LCS la chaîne sénégalaise. ah LCS. LCS. ah LCS. Ah, ah? waaw sëñ Ousmane maa ngi woote Nord Foire dama dégg li nga doon wax. waaw del déglu del seetaan télé bi macha allah yeneen émission ngi fi waaye bii moom. tous les vendredis la incha allah en direct ngeen ànd ceeg seen mbokk mi toog di alaaji Cheikh Lamine Sène allo salaamaaleykum allo waaw kon dafa rëcc tous les vendredis incha allah 22h ba 23h ngeen ànd ceeg seen mbokk alaaji Cheikh Lamine Sène di nuyu nag Adja Aïda Ka yaayu taalibe yi fa tabaarakallah sama xaaliqin di nuyu Ndey arab di nuyu sopp yëpp di nuyu Pape Anne sama xarit tabaarakallahu di nuyu Tayib Socé ñoom ñëpp samay xarit lañu Tafsir sama rak Xadim di nuyu nag. Mara Fall sama xarit du ñuy waale sama jigéen fa tabaarakallah Aminta su Touré ni ma koy waxee toujours Aminta Soda Diop ci Gëltape ak yaayam Soda ñoom ñoo ngi leen di ziare du ñuy waa Gëltape yépp bàyyiwuñu kenn fa tabaarakallah sama xaaliqin ndax it ñoom ci fii la ñu bokk 88 628 17 27 88 628 17 27 ñu ànd rek fa tabaarakallahu di kontaan ci ñi nga xamante ni mosuñoo dañ di àndandoog ñun ci jataay bi euh, jamono ju nekk. ndax it nag bëgg diine rekk ak safoo chaîne bi di LCS tabaarakallaahu ñu dikk fi nag di sàkku njub di nuyu nag kenn ci ñun suñu xarit fa tabaarakallaahu ñu koy wax Baye Camara di ñaan yàlla dolli jàmmam di ñaan yàlla dolli jàmm Ablaye Sarr Ablaye Gueye ak Mouhamed Lamine Thiam Fodé Mangasa nuyu nag madame Camara euh, soxna Fat Diop soxna Fat Mbacke Diop yaayu maam Jaara fa tabaarakallaahu di nuyu xaadim Camara sama dom ak sëñ muntaka ñom ñep fa tabaarakallah bayu ñu kenn di ñaan yàlla dolli jàmm fa tabaarakallahu di nuyu sëñ alsan Fay ak it suñu xarit oustaz ibrahim Fay fa tabaarakallah sunu khaliqin di wax rek lépp luñu fi wax muy ndariñ yàlla nako yàlla bolé luñu fi waxit mu xawa jàdd ñu jéggal ñu ko xam ne doomu aadama bu barewul xam-xam moy wax di sakko sop sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam jamono bu ñu tollu 88 628 17 27 Allô, salam allô Allô. Allô. Allô, oui. baat tuuti ah Hein allô Allô, oui, que tu tuuti pas tout. baat bi ah allô allô bangladesh voilà euh, ah, euh, euh, ah tu parles français oui je peux parler je peux je peux parler français mais oui, bien sûr, mais attention, il faudrait que ça tourne autour de l'émission. Hein. Je pense que bien, vous, bien sûr, vous comprenez ce que nous disons. Enfin, euh, nous sommes en train de, de parler de, de, du prophète Mohammed Ali et Chan. Oui. Et que je voulais demander une question concernant cette nuit, et, précisément pour Chaban. Qu'est-ce que le prophète Mohamed Ali Sossam faisait pendant cette nuit Pendant Cette nuit, cette nuit de Chaban. Cette nuit de, la nuit où nous vivons comme ça. Oui. Mais moi, je reconnais cette voix. Je ne veux pas dire le nom, mais je reconnais cette voix. Vous-même, vous-même, vous pouvez quand même euh, nous dire euh, ce que vous pensez. Le mois là, c'est son mois. Le mois prochain, c'est le mois de Dieu. Nous préparons le carême, bien sûr. Mais nous préparons le carême, raison pour laquelle nous avons préféré euh, commencer par habituer euh, aux musulmans euh, euh, le fait de se réveiller le matin de bonheur pour nous occuper de, de, notre adoration envers Allah. Hein, justement. Mais le prophète, lui, j'ai parlé de lui tout à l'heure. Il se levait la nuit, faire des prières, il préparait ce mois de carême qui vient, parce que ce mois-là, c'est son mois, Shaban. Donc, euh, on n'en a, on a pas encore parlé, mais nous préparons le, le, carême, c'est-à-dire, on est censé savoir que bientôt sera le carême dans... voilà. Mais est-ce que... Moi, je vous reconnais. Vous, vous, ne voulez pas dire votre nom <laughs> Non. Allô <laughs> Je m'appelle Mohamed Bachir. Mohamed Bachir Oui. Vous vous appelez d'où, Mohamed Bachir J'appelle de Dakar, je suis à Dakar. Oui vraiment, j'ai beaucoup aimé votre mission et, que Dieu vous bénisse. Merci. voilà, merci beaucoup. En tout cas, en tout cas, je vous demande de, si vous avez le temps, de suivre cette émission-là. Alors tous les vendredis de 22h à 23h. Nous essayons de mettre en pratique, je ne dis pas des compétences, mais quelque chose que nous avons appris euh, pour essayer d'aider les musulmans à mieux observer les règles de l'islam. Merci beaucoup, Monsieur ouais, D'ailleurs, vous, m'obligez à parler français. L'émission là n'est pas en oui, français. <laughs> merci beaucoup, monsieur Bachir. Euh, ñoo ngi jégalu ci kàddu yooyu parce que moom il nous a pris au dépourvu euh, waaye mu mel ni waxtu wi sax dafa jot daf ñu dab ci moom la ñu dabe ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp tabarakallah. waaye ñoo ngi jéggalu parce que kooku dikk ni samay wolof leerul xëy na ñàkkul ni am na lu mu for ci émission bi wax na nag lu am solo bu waxtu bi jeexul woon nag ñu étalé fi waaye nag yàlla nañu fi dellu seeg jàmm fekk leen fekk jàmm wa tabaarakallaahu ñu waxtaan ci loolu daanaka waxtu wi ay simili yu tuute ci des ñu nuyu nag Adja Ndumbe Guèye wa tabaarakallaahu euh, madame Guèye tabaarakallaahu di nuyu nag euh, waa këram ñoom aji tabaarakallaahu aji Guèye di nuy naata bàyyiwuñu kenn ni Ibrahima ñoom petit di nuyu nag sama doom sama xarit Mansour Guèye taalibi Cheikh bejo ak soxna buso di nuyu nag sama waa kër soxna Safiya ak soxna Marème di nuyu sama waa kër Mouhamed Nafisatu Ndey Aminta macha allahu waaye di wax rek sopp na bi Ngoone Thiaw nuyul ma waa Sicap yépp tabarakallahu vie bari nuyul ma waa jëppal yépp yow ak Banel ak Adja Khady Ndiaye bàyyiwuma kenn konaa ñoom ñëpp Lamine Samb maa ngi leen di ziar Ousseynou tabaarkàlla doo mën a lim ñëpp di nuyu Aïcha mu ndaw ak yaayam Marème Thiané Ndeye Marie Pauline sekk di nuyu waale rek borom këram saa Diop mënul ñàkk nag li ñuy def nii doo mën a tuddundoo ñëpp tabaarakallahu waaye nag dañuy suivre bëgg di woote te dañuy woote des fois duñu dugg di nuyu nag suñu xarit Asdam ak sëriñ Amar waaye di nuyu nag euh, Serigne Babu di leen wax rek ni seen mbokk El Hadj Cheikh seen la woon di jéggalu encore une fois borom xam-xam yi. di ñaan xëy na prochainement dinañ gën a teel ubbi téléphone yi ñuy dugg ñuy jotul dugg nag ñoo ngi jëggalu di leen jox daje incha allah ajuma bii di ñëw bi awnillahi wa bi quwwatihi di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم